الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوشي تي في جسان فيدوبي لن يونت نكو بشرى موي لان من بشرى موي نيت يالا وون كو سي گنت تخير الله تعالى خير گنت كو خامني گنت كو رافet la gënt ak texe la yàlla won na la ko fii ci àddina wala mu won ko nit mu gisal la ko fii ci bu ko defee nag gént dafa am ci solo dafa am ci diine dafa am ci lislaam ak ci borom xam-xam yi place boo xam ne nangu nañ ko ndax gént xaaj la juróom juróom juróom ñeent ci nubuwa ndax nubuwa ko séddalee juróom la juróom benn juróom benn xaaj la euh, la ñeent fukki xaaj la ak juróom benn ñeent fukki xaaj yooyu juróom benn boo ko séddalee divisé ko ci euh, euh, juróom ci ñe ci ñaar fukki ak ñett yi nga xam ne yonent am na ko ci àddina daf lay jox ñeent fukk ak juróom fukk ak juróom-benn ñeent fukk ak juróom-benn yooyu mooy li nga xam ne mooy gént ndax yonent géntam yëpp wilaay euh, nubuutu gi yëpp ñaar fukki la ak juróom ñaar fukki la ak ñett ñaar fukki ak ñett juróom-benn yu njëkk yëpp. juróom-benn xaaj yu njëkk yëpp ci ñaar fukki ak juróom-ñett yooyu euh, ñaar fukki ak ñett yooyu gént la bon nag mi ngi mel ni ak nu bootu da ko séddale juróom-benn euh, juróom-benn juróom-benn weer juróom-benn weer yi nga xam ne séddale nga ko euh, fanweer ñaar fukki at ak juróom-ñett daf lay jox ñeent fukk ak juróom-benn. su ko defee ñeent fukk ak juróom benn yooyu mooy xaaj bi nga xam ne mooy xaaju xaaj mooy xaaju ak yonent moo tax yonent mu ne nubuwa jeex na dara desatu fi lu dul ay gént yoo xam ne gént yu baax la nit ñu baax ñi ñoo koy gént nit ñu baax ñi nag ñooy gént gént yu baax yooyu doonul na rek n'importe quel gént rek noonu waaye nit ku baax ñu ne ku la gën a dàqa wax dëgg ci àddina rek moo la gën a mën a am gént bu dëgg ku la dàqa wax dëgg rek moo la gën a mën am mën a am gént bu dëgg waaye koo xam ne nag tey mu wax dëgg ëllëg mu bañ wax dëgg kooku itam ay géntam kenn du ko jàpp kenn ko jàppee gént rek da koy jàppee ay go xoy rek la ndax gént ñetti xaaj rek la gént loo xam ne yàlla moo la ko woon tout suite mu jógee ci aras la mu jógee ci yàlla na ko neexee nga gént ko loolu gént la loolu gént la mushahada euh, lañ koy wax am na gént yoo xam ne gént yi li euh, ngay jàng ak li ngay xalaat moom ngay gént loolu itam xaaj la ci gént la am na gént yoo xam ne li ngay def rek li ngay def nii ëllëg li ngay def nii boo toogee li ngay def ak nit ñi yooyu rek ngay gént su ko defee loolu itam gént seytaane la am na gént yoo xam ne ci yàlla la bàyyeekoo mooy bushra yi am na gént yoo xam ne ci seytaane lay bàyyeekoo mooy gént yi nga xam ne daf lay tiita ngay tiita tiita tiit am na gént yoo xam ne nag gént yi yi ngay indoo rek di ko fanaanee di ko waxee di ko jëfee yooyu la gént yi def bu ko defee ñetti gént yooyu ñoo am gént gi ci bàyyi ko ci yàlla nag mooy gént gi nga xam ne nit euh, sàmm nañ ci mu nekk rajulun saalih nit koo xam ne nit ku yiw la nit koo xam ne du fen nit koo xam ne lépp lu mu la wax rek dëgg la ci moom du dellu gannaaw ci ay waxam mu ne kooku bu la géntalee mën nga am mën nga am njort bu rafet ci géntam ak itam ku mel noonu itam bu géntalee boppam itam yàlla mën na koo may ci géntam itam mu doon loo xam ne luñ nangu la rek Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd baay yéenay liggéey fay du baay bi ci barxama ñu ngi gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy